ñu ngi souhaité ñëpp ci weeru gàmmu wu tedd wi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru sallallahu alayhi wa sallam di ci ziar bu baax suñu sopp yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay bi fu ñu mën a toll ci seen émission Shukran bu ñu leen baax defal ci dakarmidi.net ak ci waa wasaare ñu ci ziar ñëpp mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay fu toll mbokk yi ne bitim réew ak yi ci biti ci biir réew ñi ñëpp ñu ngi leen di ziar di jiital ci ziar bi it nag suñu soppeb bopp bi di soppeb sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko waxee rek xel yépp daj Cheikh Alassane Sène yàlla na ko yàlla jàppale ñu ñëw ci suñu ñetteelu bunt Mouhamadul Bouchayri way ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni nag ci bunt bi la xaw a indexé yonent bi ngir ñu xam ki bëgg a wax mu ne zalamtu sunnata ahya sunnata man ahya dalaami illaa an ishtakat xadamaahu durra min warami mu ne man daal maa ngi jàpp sama bopp koo xam ne dama dama tilimal diine ji nga xam ne moom la fi yonent bi fekkoon parce que waxoon na ne deful benn effort ci julli farata boo xam ne dolli na ca naafila waxoon na ne deful benn effort boo xam ne dolli na ko naafila ci weeru koor waxoon na ne deful benn effort boo xam ne dolli na ko ca aj naafilaa ko moo tax mu ne zalamtu sunnata man ahya zalaami illa an ishtakat xadamaahu durra man daal dafa mel ni gàkkal naa sunna si yonent bi nga xam ne moom daf daan jóg di dundal guddi yi di ko julli dem ba mujj gi sax tànk yi dañuy metti dootul mën a taxaw dem na ba benn ba sayidatuna Aïcha wax ko ko radiyallahu anha ne ko moo yow xanaa yàlla waxu la ne la jéggal na la sa bàkkaar yi njëkk yi ak yu mujj yi loolu rek jaroon na nga sant yàlla te toog noppalu mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax waruma nekk jàmbu sant yàlla ci loolu parce que yëg na yàlla defal na la xéewal nga sant ko rek loolu dafa moo tax jaam dafa war sant yàlla ci n'importe quel moment mu ne wa shabda min shagamin axsaauhu wa tawa taxta alxijaarati kasxan mutrifal adami yonent bi daana taxaw di julli dem ba dootu ko man ndax legg yi dañuy day dem ba day metti mu mujj jël kaala gi takk ci ay xeer takk ko ci suuf mbàq gi pour mu mën a taxaw sallallahu alayhi wa sallam te pourtant bu ko neexoon du ko ci fekk ndax yàlla defal na ko probable yépp yàlla ubbil na ko waaye ku jiite aw yoon te war a wan nit ñi fi ñu war a jaar doo tàyyi doo yokkat loolu rekk a taxoon mu di ko def mooy yonent boo xam ne wa raawadatu ljibaalu summa min dahabin an nafsihi fa araha sama samami daf daan ñàkk ba du am dépense bu mu joxe këram bu romboo xeer yeeg doj yi ñu naan ko soppi ñu wurus jaay yi ñu ngir mën ñu jariñoo waaye saa buñ ko ko waxee rek mu dëddu leen parce que yàlla yónni wu ko fi pour mu taarloo àddina li ko fi yàlla yónni pour mu defar jikko yi ndax daana wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq am na feneen fu mu wax ni innama bu'istu li utammima saalihal axlaaq dañ ma fi yónni ngir jikko yu baax yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ma mottali leen jikko yu bon yi fi nekkoon ma dajji leen ñëpp roy ci man mu ne wa akadat zuhduhu fiiha daruratuhu inna darurata la taadu ala asami ala mu ne daana feddali ku dëddu addinaam gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa dëddu àddinaam bis bu jot daf ko daan feddali di wane na soxla wu ma ci àddina dara ndax lorkat mënta jóge ci koo xam na ni moom maxsuum la yàlla daf ko garanti ne kii du def bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp xam nañ ni maxsuum la du juum du def bàkkaar lépp yàlla jéggal na ko mu ne wa kayfa tad'u dunya wa kayfa tad'u ila dunya daruratu man lawlaahu lam taxruji dunya min al adami mu ne naka lay woowee moom àdduna ay loraangeem bëgg ko xëpp ci yonent boo xam ne bu dul woon moom àdduna du jóge ci ñàkk bay am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam univers bi moom moo tax yàlla def ko fi ci mbaaxam ndax daana wax ne ana min nuurillahi wal muminuuna mi nuuri man ci leeru yàlla laa jóge directement waaye yéen ci sama leer lañ leen xellee mu mel ni ñu ne ko kooku mooy kan mu ne mooy muhammadun ki ñuy wax muhammad fi la indi tur wi dëggantaan nag ñu ne ko waaw xam nañu muhammad mu ne kaw na ni wax saqale saqalayni mooy sangu ñaari nekkuwaay yi muy àddina alaaxira mooy sangu yi ñaari dijji bopp yi muy nit ak jinne ñoom ñépp mooy seen sang wal ni mooy sangu ñaari teqale yi ci làng min urbin moo xam arab nga làkk wa min ajami ak weneen làkk wudul arab ñu ne ko waaw kookoy kan mu ne nabiyuna mooy nabiyunal amiru naahi muy suñu yonent bi nga xam ni mooy digle mooy tere fala ahadun abarra fi qawli fi qawli laa minhu wala naam mooy sang bi nga xam ni lu mu xas wax waaw déet mënatu fa am lu mu xas wax déet waaw mënatu fa am ndax lu mu wax waaw yàlla nee na waaw lu mu ne déet yàlla nee na déet moom yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam mu ne huwa alxabibu alladi turja shafaatuhu mooy soppe bu tedd ba nga xam ne rammoom ma lañ ñépp yaakaar yowmal xiyaam buñ fa dajee bu yéexee ramm rek musiba am ndax yonent yi kenn ku nekk am na motif bu jaar sa diggante ak sa borom waaye moom sallallahu alayhi wa sallam bu jóge li muy njëkk a lijjanti mooy daf naan ummati ummati ana sama xeet ana sama xeet ci bisu tiit boo xam ne raj raj loola mu ne li kulli hawlin min al ahwaali muqtaximi ci bisu raj raj loo boo xam ne bu dul woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara du fa baax ndax moom nga dégg maam Cheikh Al Hadj Malick di ko wax ca xilaasu zahab ne min kulli wasfin xamidin xaada afaala tafdilu rajaul baraya yowma muzdahami jikko ju baax ju ñuy monte ci nit wala ju nit di fexe ba amal ko boppam ñu xemmem ko ci jikko jooja ni kii de sang la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéggi na jéggi na jikko jooja afala tafdil la maanaam daal bi ñuy seet jikko yi gën a baax gën a kowe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tege ca njob waxtal la mu ne daa ilallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan woote jëme ci yàlla fal mustamsikuuna bihi mustamsikuuna bi xablin xayri munfasimi ku jàpp ca wooteem boobu dëggal ko téye nga ci buum goo xam ne du firiñ ci ko du reweñ ci ku du dagg waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy buumu yàlla gi nga xam ne moo yoore ci kaw suuf tàllal loxo pour ñëpp jàpp ci mag ñi ñëw jàpp ci yor seen loxo ñi leen yaakaar jàpp ci loolu muy symbole lislaam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daan wax ni al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi moo tax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam faaqa annabiyina fi xalqin wa fi xuluqin walam yu daanuhu fi ilmin wala karami mu ne yonent bi daal seet nañ ko seet daal mais romb na mbooleem yonent yi ci jikko ak ci melo moo tax bi ko yàlla di tagg daf ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow daal yow yonent bi daal ñëpp yàlla leen gën a tedd jikko yow daal kenn séenu la ci kowe kenn séenu la ci tedd la wa kulluhum mboolem yonent yi min rasulillahi multamisun ñoom ñëpp am ngëbit lañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa su ñu ko waxee nag mi ngi mel ni ku fekk benn saako dugub mu tooyal loxoom dugal ko ci biir génne la mu fa bàyyi mooy yonent bi la taq ca loxo mooy ñu baax ñi ci misaal ko pour mu gàtt mu ne xarxan min al baxri aw rashfan min moo xam nga diigal sa loxo ci géej bi nga ko génnee li ci tooy mooy ñu baax ñi la des ca géej gi mooy yonent bi wala am yol moo xam ne dafa yole jóge ci am waame moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa waaqifuuna ladayhim inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min chaklatil xikami ñoom yonent yi daal boo leen seetee ci degré yonent bi bu buñ taxawee dañuy mel ni benn baat bu bind tomb benn tomb bu ko symboliser nga xool xam ne lii fa la wala nga xool ko xam ne lii ra wa wala nga xool ko xam ne lii nuun la noonu tomb boobu mel ci xaraf bi nee na noonu la yonent yi mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa moom yonent boobu alladi mooy ka nga xam ne tàmm mate na maanaahu maanaam ma dégg yonant bi ba ne nangam manqué na ci moom déedéet loolu amul wa suuratuhu ak jëmmam ja lépp yàlla du ko bind mu complété mu wàcce ko su mustafaahu habiban baari u nasabi bi yàlla bi mu ko defee noonu ba pare daf ko daf ko jël tànnalaat ko boppam daf ko soppe boppam mën na dëhun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dañ la an sharikin ci luñ koy bokkaale mbaa ñu di ko ko niroole loo niroole yonent bi rek xas nga loola ndax yonent bi romb na la di dem fii mahasinihi ci mbellitam wala ci jikkoom ju rafet wala ca taaram ba fa jawharul xusni dëgg dëgg dëgg rafetaayu wurus daal fii nekk na ci yonent ba diig ca ba jeex tàkk xayru mun xasimit di lu kenn mënta séddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne daa maa daatu nasaara fi nabiyihim waxkum bi ma chita min sharafi na nga na nga natt sa bopp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci baaxitu jikkoom te nga bañ a def ni nasaraan yi woo seen yonent yi naan ay yàlla lañu loolu ëpp na te nga xereñe nu la neex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boo koy tagg boo koy tagg daal waxal ci moom lu baax loo xalaat waxal ba mu des ne ko yàlla la wan sub ilaa baatihima shikta tamit sarafin na nga melal yonent bi nu la neex ci tedd nga wan sub ilaa qadrihima shikta min aidamin na nga melal it yonent bi nu la neex ci màggaay yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko nat mu ne fa inna fadla rasulillahi naka ngëneelal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu xaddun fa yuribu anhu naatiqun bi fammi du luñ mën a leeral ci gémmiñ ba gémmiñ mën ko tudd ñu ne leer na léegi lii mooy yonent bi kii day wax lim xam ci lii kii wax lim xam ci lee kii wax lim xam ci lale fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqina moo tax yonent bi du ko kenn di natt ci jikko mbaa ci melo mu ne law naa sabta qadruhu ayatuhu idaman ahya ismuhu ayna yudha daari sarrimami yonent bi mooy koo xam ne ko ñëpp joxoon gëdd bi mu moom soo taxawee ci ay sëg woo fa turu yonent bi mu dekkal mboolem ku faatu sallallahu alayhi wa sallam lam yamtaxina bima taxya alcuqulu bihi xirsan alayna falam nartab walam nahimi mu ne examiné wuñ ci xel mbaa ci xalaat ni ne yonent bi daal dana war a mel ni nàngam déedéet nee na loola xel bu nu ko jàpp xërte rek ka fi nekk xërte mu ne te bàyyil sax def defle bi maam Cheikh El Hadji bi muy way yonent bi jaar ci yonent yi di wax bihi bihi bihi bihi daraja yi ñu am ci yonent bi martaba yi ñu am ci yonent bi xettaliku gi ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko lim ba mu jeex dafa mel ni jëmmam dafa xotti ku ñaar benn bi taxaw ne bi ci des daayil it naa ba xut kullal baraaya uniiloo maa uniiloo bil mu bii bàyyil def def bi neel yonent bi daal mboolem lu nit am ci lu baax yaa ko amee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñëpp faxawuti ko waaw mu ne ayal wara fahmu maanaahu fa laysa yura lil qurbi wal bu'di fihi gayru munfahimi mu ne lottal na mboolem mbindeef yi dégg dëgg dëgg ku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ci lott lil qurbi ci ñi ko jege woon dañ ci lottoon walil bu'di ñi ko sori dañ ci lott dañ koy nimse rek kas samsi yonent bi dafa mel ni jant sallallahu alayhi wa sallam tadharu lil aynayni min bu'din day feeñ ci ay bët tuuti lool saxiratan di lu tuuti lool wa tukillu tarfa min amami waaye boo ko bëggee xool une heure et demi def face à jant bi da nga ciy lott trop dana tuuti mais ak a naqari xool nee na ko mel noonu mooy yonent bi ci sariwaay ba ca tàngaay ba ca leer ga waaye kenn mënu ko xool mu ne wa kayfa yudriku fi dunya xaqiqatuhu ku mel ni naka la adduna di xame dëgg dëgg kuy kooku xaw mun aw nit ñoo xam ni niyaamun tasal mun dañuy nelaw tasallaw anhu bil hulumi nis luwuñ ci dara nis luwuñ dara ci yonente bi lu dul ci gént gént rek lañ mën a am ci moom nit ñu mel noonu naka lañ mën a xame dëgg dëgg kuy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko way ba mu yàgg nag mu mel ni ku gàtt mu ne fa mablagul ilmi fiihi man daal seet naa ko seet daal ki may seet bi ko lëñ bëtee ba lëñ bët ko gis naa ne profilu nit la yor bi mu yemee foofu dafa gàtt wax nañ ne bi mu tëddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ne ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi moo tax bayit bi wax nañ ne yonent bi moo ko eggaleel boppam yonent bi ne ko bul sonn ci wax bi neel daal mooy koo xam ne mboolem li yàlla bind moo ci gën boo waxee loolu rek doo daal moo tax mu ne wa kullu aayin ata rusulul kiraamu biha fa innama tasalat bi nuurihi bihimi mu ne bépp kéemtaan bu yonent yi njëkk yi indi woon dañ ko jokkale ak leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci leeru yonent bi lañ daan dëgg di def seen mucjisa yooyu fa innahu ñoom yonent yooyu fa innahu naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sam su faddalin mooy jëntu ngëneel bi waaw hum yonent yi ci des kawaakibuha ñooy biddiw yi gunge waaw jant bi bu bëccëgee bu feeñee biddiw bu feeñ def doo doo génn kenn du la gis waaw na yudhirna anwaaraha linnaasi fi dulami yonent yi ñoom li ñu man mooy leeral ne am na jant bu fi nekkoon di reflété ci bëccëg bi moo tax ñoom ñuy génn guddi gi xata ida talaat fi ufuqi hammahu daa waaw xata ida talaat ba mu feeñ fi ufuqi ci mboolem gox yi jant bi bu fenkee Europe ak Asie ak Amérique ak Afrique ñëpp ciy bénéficié wu te pourtant benn jant kese la mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa axeer saairal umami tey ci lay dundal mbooleem gox yi nga xam ne ñoo ko wër moo tax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo alimenté mbooleem mbindaa fan mu ne akrim na nga teral wala ormalal màggalal bi na bi nabiyin zaanahu xuluxan ci jikko yonent boo xam ne wala bindub yonent boo xam ne la ko gunge tingoom ko muy jikko ju rafet ba yàlla tagg ko ci bil xusni ci taar mustamilin bu nëbbuwul bil bishri mustasimi mubtasim mu ne taaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du lu nëbbu loo xam ne mbindaa fon yi kenn ku nekk jël nga ci sa wàll am na ñu nuru yonent bi ci bakkan ñi nuru ko ci loxo ñi nuru ko ci tànk bi ci bët et cetera et et cetera parce que ku nekk yàlla daf la soppal ci yonent bi daf la compal ci yonent bi jox la nga ànd loola dem mu ne dafa mel ni ki fleur moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi tarafin ci nooy wala fleur dafa mel ni yonent bi ci nooy wal badri mu ne weer dafa mel ni yonent bi fi sharafin ci tedd nga wal fii karamin dafa mel ni yonent bi ci ci ci ëmb teraanga wa dahri mu ne jamono sax dafa mel ni yonent bi fii himami ci yitte ku xool ni jamono di doxee évolution bi ni mu gaawee yitte ji mu am dara taxawul dara taxawul nee na mi ngi jëlee yitte jooju ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal boo koy seet ka annahu huwa fardun fi jalaalatihi dafa mel ni kenn ca màgg ga mu màgg ak tedd ga ko yàlla teddal fii askarin in talqaahu wa fi xasan bu ngeen dajee ci guerre moo la man bu ngeen jëflantee lu baax moo la man yonent boobu daal sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko natt ci dara jikko ju baax ju indi moo la ko man soo dajeek moom ci guerre yi da nga ndax wa bi xaylihi jalabal wara wali man ajaabu nay lu xaylu maraami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi dafa jëflanteeg ñoom mbaax ñu dugg ci lislaam ñii dafa jëflanteeg ñoom ci jaasi bax la ñu dugg ci lislaam kon kenn ku nekk ak na mu jëflanteeg yow mu ne ko annama lu'lu'ul maknuunu fi sadafin min maadanay mantiqin mu wa mubtasimi yonent bi daal bu ñu la koy misaalal dafa mel ni ki koofur boo xam ne dañ ci duy wurus ak jamaa ba mu fees dugal ko ci diggante ak gémmiñ mu war a wax li ci koofar bi yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam la boo xam ne mi ngi ci biir gémmiñ yi ñëpp lott ci mën a génne richesse ba ca nekk kon yonent bi kenn xamu ko sallallahu alayhi wa moo tax mu wax ne taayal uqulu kalaalam inda ru'yatihi kam ka annama nadarat lishamsi min amami mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa daal boo koy seet dëgg-dëgg lottal na xel lottal na gis jàkkaarloog leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool ko jàkkaarlook leeru jant bu une heure di ko xool sax moo ko gën a sedd jantu une heure trente mbokk yi ku ko bëgg xool face à lu xool bi rëy rëy bu yàgg te leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo alimenté leeru jant bi mu ne laa tiiba ya yaadilu turban damma aadamuhu tuuba li muntasiqin minhu wa muntasimi mu ne parfum lu mu neex neex mën ta yem ak parfum wu xetu yonent bi sallallahu alayhi wa suuf lu mu laab laab ak place lu mu laab laab mënta gën a laab place ba yonent bi tëdd ci kaw suuf moo tax daana wax ne maa bayna bayti wa minbari rawdun min riyaadil janna sama diggante sama néeg bi ak diggante sama minbaru jàkk ji nee na pay la ci payu aljanna yi moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne texe ñeel na ku fuul suuf soosa wala nga fóon place booba walla nga ñastandiku ko ku mel noonu daal nee na ñee nañu la yow kenn defut lu mel ni li nga def kon mbokk yi loolu moo doon seen émission ci burdatul madih ci ndakaar dakar midi point net ak wasaare wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu